salaamaaleykum mbokki internet télé Sénégal ñu ngi leen nuyu di leen siyaar tey dañoo fël ak feneen dama leen indi ak dama lay jox pas soke wala soke li ci ciy taftal nag man maa ko xam waaye comme ni ma leen ko waxee tout le temps bu leen fàtte abonné wu bu leen fàtte activer notification à chaque fois bu ñu dugalee vidéo ngeen mën koy jot dama lay laaj après nga ne soke wu pas soke dégg noo tudd junior c'est bon présentement ñu ngi tax taxaw ak junior Sarr junior moom nee na li ko soke dafa gaaw a daanu bu nekkee jigéen <laughs> choqué très choqué très choqué même très choqué. très choqué choqué. waaw très choqué. gaaw a daanu bi c'est très choqué. Hmm? gaaw a daanu <laughs> nu fa demee nii baay. <laughs> oui. noo tudd. Kia. c'est bon teel choqué bu baax cameraman c'est bon c'est bon. bon présentement ñu ngi nii taxaw ak Kia moom nee na lu ko choqué mooy xale yu góor ñi mënatuñu téye plus de cinq minutes. waaw lu ma choqué la man xaw ma ndax léegi affaire yi dafa doy waar wala yéen damp bee baaxul wala comprendre ma daal mais man daal choqué naa trop li ngeen gaaw a li ngeen mënta tenir daal choqué na ma trop. ak loola choqué wul dégg nga ok c'est bon sama caméra c'est bon noo tudd. Mouhamed Dias léegi Mouhamed Dias yëkkati choqué bi choqué bi nga yëkkati ok yëkkati ko c'est bon c'est ni nga ko koy téye waaw c'est bon caméraman ok présentement ñu ngi nii taxaw ak Momo moom nee na lu ko choqué dafa gaaw a daanu. lan mooy loolu tamit kii dégg nga li wax. Rash da nga kii wax Rash bëggul ñuy tudd turam ci caméra bi non li nga wax dina ko ba pare sinon du ma wax du ma tontu. <laughs> noo tudd. Ibrahima Diagne. c'est bon présentement ñu ngi nii taxaw ak Ibrahima Diagne Ibrahima Diagne moom neen lu ko sokkee dafa gaaw a daanu. Mm-hmm. waaw man moom Macky Sall moom a choqué moom vraiment quoi. Macky moo la choqué. waaw affaire yi muy teg xam nga dëkk fu mu toll nii muy laaj ay avion xam nga parewuñ si loolu ñu ñuy génne waatal ay bateau bateau de croisière xaw affaire yooyu noonu loolu sama choc waaw loolu daal moo la choqué waaw gaaw daanu bi choqué gaaw daanu noonu gaaw daanu moom choqué wala maa ngi taxaw ak Basir dama lay laaj est-ce wala choqué wul bu sama caméraman pare ñu wax c'est bon présentement maa ngi nii ak bassir moom neen lu ko choqué dafa am lu vidéo Lomotif booy di ko wane partout ci réseaux sociaux yi waaw loolu franchement moom dafa ma choqué quoi léegi léegi gars yi ñu wax ni léegi chaque événement bu amee rek lendemain bi foog ñu foog ñu gis ay vidéo lomotif yu génn loolu moom bokk na si li ma choqué si dëkk bi léegi quoi. te yow sa vidéo lomotif buy circulé daf la choqué. vidéo lomotif moom sa ça choque moom vraiment ak ak ak nu muy génnee et tout dafa dafa ma waaw dafa choquant. bi ñu ngi koy gis ci réseaux sociaux yi muy tourné loolu choqué wala. sama <laughs> <laughs> si yàlla bu sel. choc bi kay gaañaan mi ngi baax nii. choqué bi noo man Abdou Gueye laa Abdou dama la laaj lu la soke ak lu la sokewul ci réew mi c'est bon ah, ñu ngi ni taxaw ak Abdou Gueye Abdou moom neen lu ko soke bu nekkee jigéen dafa gaaw a daanu no non non non non non non non non man Gueye laa sant maa ngi bi de man maa ngi baax de bu baax bi laa yor xam yàlla du la may nga xiibano pare du la may waaw nga dëgër yooyu moom la moo la soke ci réew mi am lu la ngay téye soke bu fekkee amul la soke nga loo soke ci réew mi xaaral wax dama lay laaj daam am lu la soke ci réew mi ah arrêté yow. léegi yow lan moo yow maa choqué léegi lan moo ma war a choqué. man Lomé TV na ma. Lomé TV. waaw dambali ji bi loolu yàgg na fi nag ah. c' xam nga problème internet bi léegi nga wax ci. ah nga wax ci. léegi góor ñi ñu bëgg a foote tamit foote man choqué na ma. da wax benn parti bu la choqué rek Macky Sall jënd na avion ak lii. bato choqué na la. bato ban la. bato la jënd croisière la jënd pour moom. saa yu bëggee dem fee dem am na ci yoo xamante ne nag ay fausse kii la rek. croisière bi am ngay naan avion bi gëm naa ko. Hmm. léegi da ngay jël sege attends avion bi avion Macky Sall bi. man li ma bëgg a laaj waa Sénégal avion bi Macky Sall moo ko moom wala da ko jëndal. pour moom buy voyager. Ah, pour pour pour pour président bi quoi président bi en tant du Macky Sall président bi en moo ci yéex parce que moom mooy président. loolu pour man de man man gisuma ci dara loo xamante ne lu ñaaw la de. xaaral pas choqué léegi voilà pas choqué. pas pas choqué pas parce que le fait que le le fait que nit ñi négatif yi bëri man dama koy positif non non doo positif yow sama xalaat laay waxee tamit kii du positif la léegi pas choqué voilà teel pas choqué bi waaw am na samay xalaat argument am na ko présentement ñu ngi nii taxaw man li may wax est ko génne. dinañ mais dinañ ko génne. tamit lu moom dinañ moom la bokk. ñu ngi nii ak Mbaye Sow moom na il n'est pas choqué ci gaaw daanu bi. waaw gaaw daanu ça dépend daanu rek ça dépend ci daanu yi nag quoi am na daanu positif am na boobu daanu négatif mais li nga ma bëggoon kii quoi <laughs> mais Cheikh bi bàyyi la ñu ne. parce que nga jël après moom bu ne lii rek après man je te pose la question dégg nga. waaw c'est bon. bon présentement ñu ngi nii taxaw ak Mame Makhali moom nee na il n'est pas choqué di xale yi di def lomotif di wone seen bagage yi parce que moom mos na def vidéo bu mel noonu ba pare. <laughs> saa <laughs> <laughs> yaa ne pas choqué parce que mos nga def lu mu ti. non yow yow da nga def choqué pas ma ne ah, tamit. ma say ba am sa génn. jaama <laughs> Tidiane c'est bon bon maa ngi nii ak Tidiane Tidiane moom nee na lu ko choqué dafa gaaw a daanu bu nekk ak jigéen. no c'est pas ça c'est pas ça mon truc je baisse pas même je <laughs> dans les trucs de meuf là. ba ce m'a choqué moom. Euh. su fekkee affaire homosexuelle yi ko waa si y en a trop y en a trop et que trop moom c'est trop quoi. et que seetaan naa benn interview Prési bu ma gën a choqué tamit aussi. voilà en disant que je sais pas ban gel moo ko posé question bi France 24 interview mu ne ko affaire homosexualité mu ne ils ont le droit. ça m'a ça m'a ça m'a choqué quoi parce que mu ne gouvernement bi du leen indi problème xanaa keneen ne ko duñ si am problème mu ne xanaa gouvernement bi du leen indi problème loolu ça veut dire que voilà. gouvernement bi daf ko daf ko lii quoi et que loolu tamit rafetul si dëkk boo xam ni voilà dëkk musulman la voilà quoi. merci beaucoup. merci beaucoup. mais nga ni yow jëloon nga gaal. non dugg naa ci gaal yi papa 2006. Hmm. waaw. après ñu indiwaat leen. ñu toogaat fii mais man chauffeur la bis laay dawal ak ay camion affaire yooyu. présentement la moo la gën a sokke ci. li ma gën a sokke ci réew mooy ngay ñii liggéey mënuñoo am léegi ñiy taxawaalu fu ñu jëm ñi am ñi chômeur yi fan lan la ñuy def. loolu laay xalaat ngay liggéey ba weer dee bu la fayee yow balaa la diis ngay lebaat pour loo dundee man loolu laa xool ni réew mi loolu mënul nekk quoi loolu ma gën a soke ci bopp bi ñuy gaare ay immeuble di taxaw te koo ci laaj liggéey xëy mu assuré mun laa wax ni lii mooy joobam. c'est ngay liggéey yow di fay li liggéey ay millions ngay liggéey man ay millions laay liggéey papa du kese wax ay théâtre ak ay wax de mais man ay millions laay joob. mais pourquoi man mënu ma am oto bu ma ñibbee maa ngi nii gi nga sama 100 francs dama koy téye sinon ma duggee ci car rapide yi kuu yi ñaar fukk yii moo may may jàmm su ma ko fayul du ma dugg te oto yu gën a seer dëkk bi man dama leen di dawal bii si may dawal 80 millions lay jar loolu dafa garaaw man billaa walaay tallaay barke Serigne Touba Mbacke balaa la diisa man ma leb pour mën a coob léegi dama xalaat ni sama ginnaaw ñi nga xamante ni amuñu métier. nan la ñuy waa ñooñu fan lañ jëm. dañ lu bëri seen ginnaaw ñu yaakaar ko loolu dafa garaaw. parce que alxuraanu karim man ay million laay job mais sama salaire matul deux cent mille am na neuf rak sama papa am ñaari soxna xam nga ak yeneen ak yeneen yow mënul wax ponkal yi ne ci dëkk bi ñu leen tudd ñëpp ñu ci bëri sama ginnaaw la ñuy jaar maa leen di dawalal nii barki Serigne Saliou Mbacke non ok sama commune la ñoo bokk ñoo bokk fu ñuy jóg. mais lay jaajëfal. ma fii la ëppee papa dund rek fi ne ci dëkk bi yëpp mënuñu koo wax. mënuñu koo wax boo koy wax dañ naa xale yi dañoo yaafuus bëgg ñoo ñuy def. barki Serigne Touba Mbacke. nii nii j'ai 33 ans aw ma jabar. te chaque jour maa ngi xëy di ko ñàkkante ji bu ñu waxee ñun ñoo ñi dañuy taxawaal dañuy foo dañuy def nii. aka ñoo bëgg a tekki. mais tekki bi ci yoon lew bi. man bëgguma luñ ñax lu ma ñaxalul sama bopp bëgguma ko bëgguma patron di ma may bëgguma di mu may neexal parce que damaa man sama métier man li may def te bëgg ko te dama koy def mais pourquoi pas mënul mool tamit ñuy sóoraale ñi seen ginnaaw. léegi yow boo amoon appel booy lancé état ban lay doon. li may laame mooy ñu dimbali néew ju doole yi ak ponkal yi nga xamante ne am nañ seen métier man ko di ko def nekk ci société di liggéey ba pare ñu leen di xoqatal di leen tegal lu xet boo demee ñoom ci yoon da ngay ñàkk parce que ñoo la ëpp moo ñoo la dàq jël ay avocat yow doo am avocat loo fay avocat da ngay mujjee lem toog ci. nga liggéey ci bërëb 15 ans wala ay 30 ans dem ba retraité ñun la amoo fi dara parce que doon ñu la caisse sociale versé luñ la IPRES versé luñ la tous da ngay lu ma gën a métti si town bàyyi noonu. mais ñu lay jaajëfal. waaw fii la rawee Papa. ñu dama ko mësoon pranké côté ban côté la woon. dama doon livré côté waaw côté boobu waaw. côté boobu côté waaw. ngay livré. ngay livré ne la da gaaw a daanu. <laughs> yooyu nekkoo ci. bàyyi loolu yooyu yooyu kenn du ko wax bàyyi loolu yooyu yooyu dagg ko sa waaye daggal loolu. mais <laughs> ñu ngi lay jaajëfal. waaw ngi lay ziar. la gis ci livraison bi yàlla ci yàlla dafa xewal. amiin amiin amiin mais mais taximaan yi est-ce que. numéro téléphone waaw mais. sa numéro téléphone pour képp ku bëgg a livrer. ah man maa ngi tudd Djily Ndoye sama numéro téléphone nekk 77 878 20 26. 878 20 26 yéen ñi nga xamante. waaw di ëpp lu nekk Vessoir la ëpp lu may nekk. waaw képp képp ku nekkulee Vessoir soo bëggee Libération rek yaa ma a xam. jeex na ki mooy Jili. maay Jili Ndoye dëkk Mbacke. sama doom ndey. waaw dëkk Mbacke Ndoye. bon c'était tout aujourd'hui avec Télé Sénégal ñu ngi leen di jox rendez-vous ci beneen yoon ak beneen numéro. commencé waat nañu affaire yi weeru koor bi moo ñu tëy woon mais bu loolu weesoo dañuy jaale suñu mbokku leeral point net ñi nga xamante ni jot nañu ñàkk seen élément ci benn accident di leen ñaanal yàlla na leen yàlla xaaree aljana yàlla na leen yaare xaaree aljana yàlla na leen yaare xaaree aljana c'était tout aujourd'hui avec Télé Sénégal d'ici là portez-vous bien